mbokk Sénégal maa leen di nuyu dama bëggoon waxtaan ak yéen ci mbirum dàq bi nga xamante ne ne président Macky sàll dàq na ko xalifa sàll ci boppu mairie bu Dakar en tant que maire de ñu jàpp ne nag kënam mbir yu mel noonu su amee ñi def jombe dañuy yor seen làmmiñ di wax ba nga xamante ne ne ku ne ñu ci bëri dañuy préférer màndu ndax mbirum droit ñi koy comprendre lu ñu bëri loolu nag lu arrangé nguur gi la ndax foofu la bëgg a jaar pour xeex ak kujje gi foofu la bëgg a jaar pour néewal doole ay adversaire politique foofu la bëgg a jaar pour installer lu ñuy wax dictature ci réew moo tax day baax lu mel noonu su amee ñu faram fàcceel leen ko ngeen xam li si ne te xam ne ne jóg jot na ñoom bañ defee communiqué seen communiqué bu mujj bii ci quatrième paragraphe yi dañ leen wax ne ne article 135 bu code des collectivités locales moom moo ne suñu la condamné mën nañ laa dàq dàq bu ñuy motiver loolu nag méngoowul ak li am sa article 135 boobu benn yoon la wax condamnation ci kaw la ko waxee mooy alinéa 1 bi ci la tudd ne condamnation par crime maanaam mën nañ laa dàq su dee dañ laa condamné par crime crime soo ko déggee mooy nga rey nit walla nga def lu rëy loo xamante ne ne loi daf ko tuddee crime loolu amul si affaire xalifa Sall mais balaa may dem si leneen li dama ne même su doon crime lañ ko doon jugé kenn condamné gu ko parce que condamnation mooy nga fi nga war a jaar yépp pour ñu xool sa yeleef nga jaar fa ba mu jeex tàkk nga atteindre lu ñuy wax autorité de la chose jugée waaye su dee bañ defee appel moo tax ñu ne bañ ko condamné euh, cour d'appel moo tax ñu ne condamnation am na kon kay mënoon nañoo génne seen décret depuis première instance bi parce que boobu tamit condamné nañ ko parce que sooy yéeg ci kaw di xool ñan ñoo la war a mun a àtte toujours dafay suspendre condamnation bi donc da ngay xaar ba loolu jeex ñu soog a xam ndax def nga walla deful ba lépp jeex ñu soog a xam ndax def nga walla defoo loolu nag jeexagul. parce que cour d'appel ba mu génnee euh, ba mu defee condamnation bi génneegul sax arrêt génneegul sax arrêt ñoom ñu def seen dàq te même su génne woon arrêt fii si six jours yi jeexul ba nga xamante ne leer na leen ne xalifa Sall deful demul cassation demul cour suprême amul dara luy war a mën a tax ñu jàpp ne condamné mais loolu parenthèse la même suñu leen toppoon ci seen logique waaye logique ba ñu nekk sax bokkul ak logique gu loi bi ndax condamnation pour crime rek mooy mën a tax ñu dàq la te duñ la sax déglu pour nag leewal seen mbir dañoo indi cent 140 mais article 140 bu code des collectivités locales bi deful lu dul lim loo xamante ne limuñu ko woon ci article 135 bi mooy alinéa 2 bi dañ ne su dee dañ laa tuumal ay mbir dañ la war a déglu war a ñu wax la nga bind après nag mën nañ jël décision daal di lay suspendre pour un mois par arrêté ministre bi moo koy def wala su dee dañ bëgg a yegg ci trois mois ñu def ko par décret loolu la cent 140 lim ba mu nekk juróom-ñetti mbir dem na sax ba ne ci al dernier alinéa bi ne juróom-ñaar ñu ñu sanctionné la boole bokkul dara ak procédure judiciaire bi maanaam ñoom waxuñu sax procédure judiciaire sax bay wax condamnation loolu concerné wul dara lu dul sanction administrative te si boobaa dañ lay aj pour un mois après bàyyi la nga liggéey wala ñu aj la pour trois mois par décret loolu mooy li am si mbirum xalifa Sall ñëpp war ko xam xam ne du lenn lu dul jaay doole du lenn lu dul bëgg toroxal sa adversaire politique du lenn lu dul bëgg a toogaat waay waay yow soo bëggee toogaat ñu la war a falaat mooy population yi suñu la bëggatul su dee mataloo lim buy war a tax ñu falaat la amatoo benn légitimité pour mën a toog du njuuj njaaj du jéem a tëj say adversaire politique di jéem a bul xatal nit ñi wala tiital nit ñi mooy war a mën a tax nga toog ci bopp réew mi moo tax ñun dañ gëm na ne luy war a mën a tax ñu ñu ñu dépasser lii mooy façon doxilin bii façon xalaat bii ñu raxas ko ci réew mi ba mu set wecc commencé ko ci président Macky Sall waaye def ko aussi pour ñëpp ñoo xamante ne dañuy xalaat comme moom di ko xelal wër ko ak ñëpp ñoo xamante ne façon boobu la ñu xamee yor réew loolu moo war a dëñ moo tax ñu woote woon alternance générationnelle parce que dañ jàpp dañu war a renouveler la classe politique dañu war a renouveler façon bu ñuy xoolee dañu war a renouveler façon bu ñuy xalaatee maa ngi gërëm ñëpp maa ngi sant ñëpp. jërëjëf